ñu delluwaat 3 million euros moom la dem lobby fine enough credit to him you understand yes but in the name of ñan la ko use pour ñu that's it foofu laa wee loo tax ma ne ñu ne ñun waa Banjul loo a ma ne ñun waa ñoo ko fuut isn't it is there to serve us is our loolu moom suñ servant la isn't it so su demee war a use moto wala use the name of bank dem jëla jël xaliss dina ko moto am nañ da ci ñew dika bu bak bu maga mak so amut so amuton ride so amuton, so amuton ride do ñew fi di wax may la tontu lo am ride la su nekkon dama personnel li man ride bi ride bi ngeen am ngeen call ma man leen kay la ngeen interview ma moy liñ ma tek ci place li ni dañ am ride confront ma taxaw waxa man man lolu xamna ni lolu suma responsibility la pour ngeen ñew jël leen interview. on a nga loolu am ngeen right waaye man tamit dama am right tamit pour loo wax ma am lu ma ci teg waaye moo tax ma ne la am nañ constraint ni garbage loolu moom ori gaay on even even don't quote waaye even the blind can see loolu dëgg te loolu du problème yi even non anyway ok non li ma bëgg a wax mais bi dafa man si man dafa nuru excuse waaye du excuse ma ne dama bëggoon a wax ne garbage du problème yi Banjul rek Euh, du du problème yi Banjul rek noonu li ma miin Gambie bi yëpp la ñu am problème yi mbalit la ay miin ba si wees bi sax mbalit problème la saka si suñun dëkk bi fii because waste management dafa nekk loo xam ne dafa complexe trop because of waste management bi mooy ni ñoo even euh, contrôler mbalit bi fu ñami mbaam bi di dem fan la butéel bi di dem waaye dinañ àgg foofu yëpp te loolu yëpp yaakaar nañ ne dinañ ko door si suñ iyu grande bi niñ am nii from EU wow through Austin do door na di door na lan non ñu ñu ngi dem set up set up li euh, committee si am pro pro, project manager si and tamit ñoom ñu ngi def seen interview si te ay ting diga diga opportunity waa sen, ñu responsible lolo, you know no, they, de de de ñoom day ñëw dañ def introduction am seen team ñëw si council bi waxam council bi mooy mayor be ministre eh, councilor si wan la ñoom ñëw nañ mooy eh, yu grand bi amoon through suñu eh, partners yi de Austin bel from Belgium so ba intro defee introduction soo yëpp léegi ñoom ñu am seen comité ba pare li li si neex mooy sélection be jël bi yëpp through EU protocole si la soo jël nañ ay ndaw yu Banjul yoo xam ne xamante ne ñoo ñoom through seen qualification gars yi ngay def ground si ñu léegi ay on man démba sa interview nañ ma about man man kaase kansu la lan la laa bëgg soxla suma woot te bina nañ ma fan yële pour man ma wax ak kansu si pour ne dañoo war a def training yu mel noonu pour wan leen ne because ñun before lii xew eh, am na ku jógoon Belgium ñëw laaj ñun lan lan lan lañ bëgg suñ kan suñ woot si te lii mas gën profité waale si rek ne EU grand bi. man maa see gën a benefit ina seen silan mooy ne not my deputy mayor bi de waaye Crab Island bi boo ko suma woot dafa am développement su baax yu mag yoo xam ne dinañ ko teg boot léegi léegi because three years la te ñu ngi si foos IA bi ñu ngi si force moon si EU bi ñu ngi defangum seen grand work yi am nañ seen set of team yëpp ba pare am nañ ñoo xam ne ñu ngi dugal léegi si city bi di di interview nit yi waaw. waaw foofu sax naa faa ñëw Crab Island bi comme moon school bëggoon naa faa waaye gis naa ne xin nga ñu si tuuti kon ñu jàlla foofu ñu demaat josi rek si biir kansul bi gis nañ ne kansul bi yéen kansulo si you are not in good terms what is wrong ah, loolu de soo ma ko waxee dina ma beeta trop man maa ngi wax si man Omar Touré ngay ma de ooyee joosi amaluma kenn otherwise otherwise in a sense mooy ama aw ma kenn xaar ma yàlla te mën na ko wax ci radio bi fi mën na lim ñep te soko ko tamit mën nga def jotaay ñep tamit nga gis ma ñom ma wax seen kanam waaw man man so ni keneen amu ta keneen eh, su keneen amé keneen problème koku dess na ci kooku mom wala su koku ne amna man problème koku dess na ci mom munu ma koo wa man awma maa problème. wa yow personnel yo amulo ken problème loolu mom digala wa ci lima li ci li correct loolu la wara a yow li nga yaakaar mais su loy yéen ñëpp dafa mel ni kan yéen ñëpp a ngi nekk benn. waaw si li ma yaakaar man waaw personnalité waaw aw maa kenn waaw parce que dinaa la kool nga uyu ma di ma oo ma uyu la di ma yëgal ma uyu ji la so man foog naa ne koo amalu affaire doo ko doo doo leen aga foofu waaw. waaw ñu delluwaat parce que yaa ngi fi doon wax ne yóbbu nga fi ay 50 nit ñu dem Sénégal nga mën a stand ci sa woot ñu delluwaat tuuti rek baax si football si development, bi bokk na si development bi nga def krabaylan Ward fii nii yóbbu nga fi ay fifty xaleel yóbbu nga fi ay fifty xaleel yoo xam ne si Crabeylan Ward ñii artiste ñii footballer ñooñu ban achievement lañ def tey. waaw ah, because by right name of lañ demaloon not Crabeylan Ward o oh, wala mun naa ne Crabeylan but in a sense of Banjul la kon naa ne ñaari aspect la gaa demaloon kañ ñetti achievement sa, agambia Gambia fa mata parce que Gambian flag bi tamit ñobu won nañ ko waaw waaw achievement bu euh parce que yow euh, yow mi yo mi soirée lima ma waye mang dina code yene ci yow because amna sa xalé yo ci achievement moy ne amna yo sa xalé yo dem nañ si football team bi ko ñaari football team lañ yobu bu joggé Ikra bay leen fii ak bu jogee si benn académie bu jógee bi boo xam ne yow bokk nga si ñu ko tàggat maa ngi profité waaye di la sant di la gërëm ci loolu parce que gis nañ xale yoo xam ne ñoom seen bopp dañ bëggoon xale yi dëkk fa ngir ne niñ mu ne li ñoo def mooy football ak arts yeneen a yeneen si si si si Banjul fii nii achievement bi mooy ne dañ dem ñu créé leen plateforme ñu dem Daniel Sorano yow da nga ko dee dégg rek man dama ko daan dégg waaye man sax dañ ma créé plateforme ma dem wax fa. ambassado Gambia bi mu ngi fa woon ñu dem ñu perform gars yi woy wone seen talent ba sénégalais yi di wax ne ñoom xamuñ seen Gambien nii lañ mel amee talent ñu jógee fa am ay football matches am artistes yoo xam ne ñoom am na ñoo xam ne dañoo def droye yooyu ñu play fa ñaari football game ñu ñu draw benn gars yi wil ñu benn waaye li si important mooy xale yi génnoon nañ biir Banjul dem am three to four days beneen dëkk buy Sénégal ñoom ñu enjoy ko ñoom seen boppa and it was very good na nga demoon toppiwaat xale yooyu nga laaj leen parce que xale yu bari jege nañ la ne ñoom exposure biñ am ak excitement biñ am gis Dakar ñoo xam ne mosu ñoo dem mosu ñoo jaara féere bi sax waaw. waaw loolu moom dëgg la ñu ñëwaat foofu noonu xale yi dem nañ am nañ exposure waaye xale yi fray nañ comme noo ko ñoom si yow sa biir wax lu waraloon. lu waroon waaw euh, di profité waale di gërëmaale ñu doon ñi doon nekkat di coordinate affaire yi because bañ koo def euh, dama o stakeholders yëpp stakeholders yi in a mooy footballers yi artistes yi am nga seen mag yi seen leaders yi ma gërëmaale ku ñëw Baba mu ngi toog fii coach la moom moo amee Crabalen City bi ma o ku ñëw wa ame amee si ñu ko wa eh, naka tidiane yula man ko because of lu isi lolu mom bala ma am bala ma eh, am programme bi ni daf fa don waxtana mom lu melni ne mu si man ne ma dañ bëggoon ñu collaborer ñu sét ñu ñoo jàppale yi banjuli not even krabalen word wa Banjul in general ma joxon ko suma cadeau te doron na lolu hewon na mom xamna ci dara yo sa xam nga ci dara joxoon <laughs> dañ daan train si paak bi paak yi KG5 train ngaa ñoom bi foo xale yi dem sa train ngaa ñoom eh, nataal yi mun nañ ko wone you know <laughs> waaye anyway anyway soo si xamul dara waaye sa xale yi doon train KG5 daf leen daan eh, sori 22 eh, July daf leen daan jafe mooy Makari Square waaye toujours suma intervention yi ñu ne waxuñ la ko waaye suma intervention la woon ba ngeen fa daan train naale noonu ba yàlla def waxtu bi jot ñu pig si ñu jël si xale yooyu jël si xale yi karabale ñu dem waaw maa nuyu waale gaa yëpp waaw si loolu ñoom ñu ñoom ñu tax loolu xew ñu dem si artistes yi Sol lim Ndiaye moo ooyoon salaam ji salaam ji moom suma xale yi leen mooy waa jëm Sénégal fii ñu jël yeneen artistes ñoom si ni ni yeneen yëpp ñu coordonné leen because dafa tombé woon affaire yoo xam ne ay ndaw yu Banjul ay artistes dañ ñëwoon di ma ko sàkku xam nga mu tombé waale projet bii nii mooy dem Sénégal bi ma ne leen waaw jo jël naa commitment wan naa leen ne dinaa jàpp si li ngeen a def mooy woon time boobu soo ma munee fàttaleku ne artiste artiste union o musician union o whatever lu ñu doon boo créer bi Banjul fii boo xam ne ñoom son Slim Ndiaye si nekkoon soo from foofu leen jëlee rek artistes yi ma ne leen de man salaam ji laa pare woon pour yoobu waaye yéen ñan ngeen bëgg a ñu adopt waaye trayoon nañ ba yóbboon artistes yu aga bi eight from fii yóbbu leen ma sol Silim Ndiaye nekkoon ci loolu ak ñoon mun jolof mun jolof dafa lu rafet sax ak ñoom gars yi wane Gambian flag bi wane Gambia because li nga wax rek nga ne sigil nañ Crabaleen woot sigil nañ Banjul waaye sigil nañ Gambia sax because lii dafa demoon inter internationally viral la demoon because amoon nañ benn Chinese channel bu fa nekk CCTV loolu million su bare ko de seetaan so loolu rek a fa woon ak Sénégalais Channel sii nii so exposé bu mag la woon pour Banjul ak Gambia. waaw loolu loolu jaaj ngi la see waaw léegi ñu ñëwaat foofu noonu artiste bi ñoo dem ñoo dem na amoon nañ ay ndàmpaay. waaw dama leen ooyoon moo tax waxtaan ba ooyoon naa leen ne leen ne ah, lii de xew na waaye awma dara lu ma leen a fay. before ñu dem meeting ne suñ. Euh, suñu office ma oo stakeholders yëpp kon ni ma la ko waxee ne de lii de dama dama fi waxtaanoon a yéen ñu am ñu ñu invite ma festival Sénégal waaye dina meeg soo rek ne lijjanti naa pour yóbbu leen foofu noonu am nga dinaa leen mun a ameel transport accommodation ak feeding ne leen waaye munu ma yéen a fay ñoom yëpp ñu rafetlu ko nag kontaan si ne ma ah loolu de du problème ñu dem artiste si fa nekkoon pile bugg ñibbisi ñoom ñu ne ñoo amaat yeneen event yu ñu fee def si ñoo ñu jox naa leen paas ñu ñib si waaye ñi fa nekka ñoo amee eh, maa amee woon seen añ maa amee woon seen reer maa amee woon seen ndéki foofu sax suma xaalis jeexoon na fa ba suma famille membres si nekka Sénégal foofu yónnee woon nañ ma xaalis ma yokkaat ko waat si dépense bi definitely waaw. waaw the same ñoom yëpp. stakeholders yëpp laa because seen kilifa yi laa ñu dem waxtaan ak xale yi ñu nangu ñu jógee fi Boxing Day after Christmas ñu jógee fi Boxing Day dem dem Dakar waaye dañ dañ ko nangu too woon suñ ko nangu too woon dañ ko doon cancel waaye waxoon naa leen lii lañoo ñoo nangu too gars yi nangu si waaw waxoon naa leen ko mu leer nañ. waaw léegi lu waral xale yi biñ ñëw ñu jël seen médaille. waaw médaille yi suma office médaille rafet sax soo ma soo soo ma soo ma soo ma ne. yooyu yëpp di nga ko doon indi naa doon woon médaille si médaille si téyewuma ko li ma ko bëggoon a def mooy dama bëggoon a organise beneen eh, programme pour woon waa Banjul xale yi liñ def Sénégal loolu rek a taxoon mu tombé ay affaire tombé ay affaire ba lii xew waaye ma profité waale ba ñëwee defal naa leen get together pique boo xam ne soo ko soo fa teewul sa teewuloo fa anyway nekkuloo fa woon waaye yëg nga ko waaye soo fa yëgul tamit maa ngi see wax si télé oo naa leen si bij bi ne leen ne dinaa leen defal pique te defoon nañ pique boo xam ne because dañ am whatsapp groupe sax ñëwoon nañ ñoom ñoo seen coach seen officers yëpp ñu enjoyen si bi ji Banjul bi ba ba ba xaaji guddi waaye médaille yi de definitely it's not deliberate because médaille yooyu mënuma koo taka anyway médaille yu bëree bëri la mooy participants yëpp about fifty medals la waaye dama ko doon bugg a def loo xam ne yow dang doon ñëw ak bi pour xale yi xam ne. Eh, lii la ñuy def achieve achievement bii la ñuy def loolu rek a taxoon pour maagal leen li eh, wane seen mbir loolu rek a taxoon waaye du woon leneen. waaw waaye fooguloon ne loolu dëgg la fooguloon ne xale xale yooyu médaille si yooyu noonu waroon nañ ko mën a bàyyee gars yow boo ñëwee nga tooga because bi nga ko jëlee ba léegi foog naa ne almost 26 of December that's boxing day ba léegi ñaata mois la. waaw because ah, naka la tuwaat ba ñu ñëwee. d'accord dañ ko dam nga li dañ ko dee d'accord de. du impose ma kenn dara si télé lay wax because buggoon naa ñu amaat beneen programme boo xam ne stakeholders yooyu yëpp ay toog ñu am leen am nga ñu waxtaanee trip boobu soo ko soo ko munee mënee create understand nga ñoom ñu wax seen expérience ak li fa xew eh, dañ ko doon organise di ko waajal di ko waajal di ko waajal ba lii xew xew mooy Covid Covid bi xew Covid bi xew leneen mënut a xew soo si gàttal daal loolu la Mister Suwareh waaye du leneen. Eh, lu si laxas wax dëgg parce que ba ma koo def it was a good intention waaye ba ma koo ba ma fi ñibbisee tamit loolu la rek waaye ku nekkaa sa opinion tamit te loolu tamit du ma du ma du ma discourage loo wala du ma eh, def looloo xam ne man dama foog ne xale yi dañ ma boole oo dañ ma li waaye yàlla xam na ne loolu du loolu du motif bi waaw. bi ñu jëlee bi ngeen bi gars yi si bi ngeen si yaa war ñoom kontaan bi ngeen jàppale ma si naka naka si naka laaj ba ñu jëlee médaille si naka. si naka lañ jëlee médaille si waaw ak kon ñoom ñu ne dañ leen nelaw ñu jël médaille si ñu ñu jël seen médaille ok ok ok understand now waaw thank you very much ñu ñu ne ñu dajale medal si jërëjëf you are right moo tax ma ne la si biir wax bi nela ma moo tax ma la gërëm yow xale yi sa xale leen waaw dëgg la eh, mun na maa ngi apologize loolu léegi waaye réalize suma woon ne loolu lu leen naxari woon la waaye lu tax ñu def ko mooy ñun exécutif bi because ñoo waa xale bu nekk ñoom ku mel ni Tidiane mooy dem waxa ñële Babanding mooy waa ñële eh, Sol Sili mooy waxa artiste yi Eh, liñ def mooy dañ leen ne suñ demee Banjul dañ ko def cérémonie parce que suñ ñëwoon Banjul rek huit di médaille seen ña duñ mun a am ñëpp soo loolu lañ doon bugg a dajale médaille saa nga ne la jóoru suma office eh, gars yi jox ñu layoon médaille su rafet sa yu Sénégal yoo xam ne dafa am gaynde bu rafet bu am kola Sénégal dañ ko buggoon a ñëw def si ribbon def cérémonie ne monsieur soirée nga ñëw ñu jox la sa médaille soo loolu la loolu lay woon waaye defi net li su fekkee loolu naxari na leen maa ngi apologize si télé laa nekk kon dafa mel ni biir Sénégal amuñoon cérémonie boobu noonu. Euh, non because of euh, ñoom organisateurs yi ñoom dañ ñu indil médaille si da amuñ benn cérémonie biir senegal non pour joxe li fi leen dañ amoon musique jamboree si biir loolu. ñoom jox nañ ñu médaille si football field bi ñu ñu dema moom si musical jamboree bi oo nañ individuel bu nekk ak ambasado bi waaw maa ngi fàttaliku léegi ambassadeur bi ñëw na jox nañ individuel bu nekk oo nañ ñu nekk jox la am na ñu fa nekkutoon sax yu am na ñu ñib si woon xam nga wax naa la ko am na ñu jox leen ko benn benn ñu nataalu am na ñu si nataalu mooy li nga wax ba yóbbu nañ ko seen néegi ñun ñu ooyaat leen pour defar cérémonie biir Banjul waaw dafi ne loolu xew na